jàppante waat nañu de eh Sélé Sélé lu mu bëgg a def nii waaye yéen Sélé xool fa mu dóor tànk ba jël na tànk ba Sélé jël na tànk ba Sélé war na ko de Sélé war na ko ndombo Sala war na ko ndombo da koy daan war na ko ndombo da koy daan de ordinateur mbaa duñ fi gis ordinateur daanu ndax du bës bouton mu daanu comme ordinateur la bësal bouton es sob ngay bës mu taxaw bësal mu fay war ndombo da koy daan de waaye mbaa dina ci gën eh MacBook la xanaa waa est-ce que lu aspect eh wër nañ ko. wër nañu ko lu mën a ko lu mën a xew. lu mën a xew daal baaxul kanam ko de. ndax da ciy génn wala lan. da koy daan. da koy daan de da koy ordinateur day daan. Babacar doy na waar de fi mu ko fi mu ko fi mu ko jàpp doy na waar. mënu génn yaakaar naa ne. ah mais ngay waxal de ordinateur. ordinateur bi machine la. ordinateur ngay waxal. xool sële mu ngi koy bay bés bopp ba mu ngi koy bay di bés bopp ba. yaakaaruma ci de. yaakaaruma ko de man nii. kii cuune. kii daa mën a bëree. du cuune du cuune. gars yi delloo nañ ko licence am. bu nekkoon cuune yaakaar naa. nee na ma damay dem drapeau chef de l' état. nga dëgg fàtte naa dañ ko ajoon. jot na licence ba nag. ko aj ko dañ koo convoqué Mbaro. waaye lii metti na di li ban combat lay fàttali. Ousmane Diop. Koli Faye Koli Faye. lañ fi jëlee 4 appui ba ngoon. suba ba ngoon eh, ba tey jeexagul de. ordinateur waay. ordinateur ba gudd ku ko na connexion Babacar. sax. ñàkkul réseau de. moo kaalal sànni Abdou Dramé. ñàkkul eh, eh pour wet wet na wet na ko taala wet na ko pour wet na ko eh wër ndomba ba yàgg na. xoolal lii eh waay waa ordinateur mi mbërëm Grand Laye mii Grand Laye sa mbër moom bañ na ne de waa taala waaru woo na taxaw mbaa du rëcc. baaw nga jéem la nu moo tax mu ne xaaral ma mi ngi jéem est-ce que sonnul. mbaa du rëcc mbaa du rëcc waaye lii na waar mi moom. lu ko dal bu doon lambi dóor ba tey ku ngay jóg da daanu Ordi daanul Ordi tëddal bilaay waa lii lan la waa lii moom lii lu mu doon waa lii lu mu doon ah way daanu nga waay Ordi sele daan na ko eh, mele mele xoolal oh lii daw na yaram jël yi mën ta bañ a rëy oh yaram daw na mbër maa lu la xañ combat bi non lamb la lamb la quoi daan naa ko dix fois dix fois laa ko daan waaw seen xam na ma kon su ma daanee tey lamb la dama koy ñaanal moom itam mu jël lamb ji waaw. la moo dëgëral combat bi. ah daf la war ndombo fa lool. non waaw noonu la yàgg na maa woon ndombo te du ma daan waaw mais yàlla dafa ne woon tey arbitre soufflé na final baa ngongu 100 pour cent Mbour Pakala Mbour Sélémélé campement ngay xoox dañuy Babacar département de Mbour lépp ci département de Mbour la Pakala dafa mel ni daa bàyyi woon bëri simple bi waaye da ci ñëwaat ah gisa mu ngi ci gisaat boppam de mi ngi ci forme tamit de mi ngi soqeeku kañ mi ngi ñëw korite gi di door di door a passé ah, nga yóbbu dara sa kër yuur ah. bu 22 ñoo bindu 22 ñoo bind woon Lirou 22 ñoo bind woon ci loo ne ñoo ca de ndeysaan Pakala Aliou Faye Pakala Mamadou Moustapha Sène c'est le mêlé. c'est le mêlé Mamadou Moustapha Sène. kii nekk écrit Mbour. Mbour montagne. montagne ca Mbour kële Grand Yoff. jóge na fa. ah c'est le waa na Grand Yoff. léegi daa beru daa beru. écrit boppam. campement Ngexo. waaye moo ko moo yey ku mu neex. daa ñib ñibbi. ni nga koy wax yeewu ma tee. Babacar yeewu ne ma. yeewu ma tee. ñibbi géej. ñibbi na ñibbi géej. da ko bëgg a wër de